Mamadou Bao man maay directeur école franco arabe Mame Ibrahima. Euh, tey ñu signalé ñu situation. <laughs> ñëwal. kooku commission bi alaaj hmm. waa jumaa ji. <laughs> suñu papa yi ñoo fi nekkoon. yor ko boobu ay xale yu ndaw lañ dumaa fi am koo xam ne fi jóge ba ba ñëw di effet di ay xaalis kooku jàkka ji ñu ko nag nangu pendant un an ngi nii sax day day waraate ñu la waxoo dëgg loolu rafet na julli jot waa commission bi ni ko takk di ko takk na ki tax ñu tëj jàkka ji lu may troisième jàkka ñu koy tëj ki xamul formation lan la suñu jàkka ji dañ ko ubbi ngir yàlla yonent bi ko ubbi waaw ah non jërëjëf jërëjëf turam nga am na ñibbi suñu jàkka ji judoowu fi kam mi dafay war si daan dëkku fi judoowu fi dafa dafa daa jënd fii kër daa fi toxu si émerge nit ñi te nag imam bi kenn jox ko gëdd si koñ bi imam bi da ko gëdd imam mi ngi liggéey mi ngi xëy mi ngi gond soxlaalu jàkka dara mais dañ ko fee bëgg a jëlee ah du toll na ajuma mi warat na ko waxoo dëgg di sànni ci biir jàkka ji. mais xanaa xëccoo imam bi xanaa lan la dafa am xaalis wala lan affaire yi. xëccoo imam bi amul xaalis mais daa am ku ñëw bëgg a taxaw ne moo nekk imam ratib bi ñu ne ko mënut a nekk ndax asma mii di jiite bàyyee moo tax jumaa ji moo ko fondement ba ni mu toll nii bi mu deewee nag Baye Ibrahima Mbaye bi mu génn àdduna lañ commencé taxaw yii taxaw waaye bi fi nekk kenn sañu ko as nit ku dëggu la soxlawul dërëmu kenn kon bi ay móodu móodu la ko fi nekk ku ñibbisi jox ko xaalis jox ko ay ay mbasin léegi nag mbasin yooyu ñu sol moo lañ metti as ku julite la ku lislaami la nañ ko bàyyi mu jiite jumaa ji wóolu fi keneen ku dul moom. léegi ah. la mais nag la ci ñoom de. gàcce la ci ñoom. te booy xool bi man man El Hadj Thiam maa bi xaaj bi fi ñu taxaw si mënut a jàkk dañuy nekk ci toog ñu yor bi xaaj bi kenn xëy ci kenn góorlu bi leen jiite moo lañu information jox xaalis léegi lan mooy ndey par ajuma ñoom bu ñu la waane ba pare bu ñu la daal si jox loolu pour lan mooy commission bi mooy commission bi euh, judd fii commission bi fi judd commission boo xam ne sax amul sax tas jàkka ji ay saagante nday di saaga seen moroom papa as demul kenn dara. ndax loolu dem ngeen ci préfet yëgal ko ko lu mel noonu. dem nañ préfet préfet ñoom waxtaan ñoom ñu ne bàyyi nañ ñu demaat police police carré bi ñoom dem na fa quatre fois amatuñu fa dugg ñoom police bu nu Pikine léegi nag ba ki démb dañu dem wasi fa ñu ne imam bi kenn fi wasi fa fa la coow li léegi bu loolu amul yéen population yi nga xam ñoo dëkk ci koñ bi lan lañ fas yéenee def. population yi ñoo ne ginnaaw Ass Mbaye góor jigéen mag ndaw Ass Mbaye lañ xam parce que baayam moo fi nekkoon di jiite dem ba nekk ci feebar bi mu ne kaay ngay jiite ñëpp d'accord ko nag nañ bàyyi Ass nañu bàyyi Ass. Ass jotewul ak kenn dara bu dee Massa émission moo leen métti Massa mbóori mbóori ñoo ko jox. as fi la wàcce fi la woo benn waaju am xaalis wàcce ko kaamil ñaanal ko ñaan ki nangu waaye da ko ñaata laa lay fay as mbay na ko soxluma xaalis jàkka ji amul ay moquette waaye yónne ko ay moquette as mbay da ci moquette yi pour koro jàkka ji ñu ne jaay na moquette bi mu génnee moquette bi mu génnee moquette dañoo rus jàkka ji sàcc na fi lu ne sàcc na fi xaalis bu ne as mbay soxlawul xaalis jàkka ji dara bu tudd amee mooy dem gij bu amee mooy dem lu am mooy dem ah lu am mooy dem moom lañuy gis gis ñu commission gis ñu kenn nañ ko bàyyi waaw nañ ko bàyyi ànd ñoom ñoom wasalaam boo gisee ma di ci wax sax hmm. affaire bi ni mu demee moonu jaaxal ñun ñëpp ndax jàkk ji di jumaay Alaaji Ibrahima Mbaye ji lii mus fi am bu fi ah bu fi coow amee diggante daaw ren la fi am tekke ko fi indi ku ne xam na ko wax nañu ba tàyyi coow li bëgg mu deñ mun noo fexe ba mu deñ préfet nag ñu ñëw fa moom wax ko dañoo waxul dëgg ga waaye bu ñu waxoon dëgg ga préfet du ñëw di ko tëj ndax préfet jullit la te baax la nit ñi ñoo ko waxul lu dul dëgg rek waaye bu ñu ko waxoon lu doon dëgg kon du ñëw jàkk ji jàkk ji nga xaay li jule ci nit ëpp na 600 personnes préfet bu xamee loolu du ko tëj dëkk baa ngi ne lew fi mu ne kenn julli jiwul fenn ndax ñàkk foo jullee kenn talu ko préfet na dimbali nit ñi bu mu topp seytaane soo yi kooku saytaane rek la loolu ñu wax lépp dara du ci dëgg dara du ci dëgg bu doon dëgg ñit ñu xam ko dëkk baa ngi nii gone yëpp a ngi taxaw waaw nun kay xamuñu lu xew lu way keroog ba aas di def bayaan la taxaw ca biir jàkk jëni ko li ngay wax du dëgg te xam naa la aas wax dëgg la aas kat alxuraan la doon wax alxuraan la doon wax de te yàlla wax yonent bi wax ko dong la doon wax ñan ñoo dem ci préfet wax man kay xawma ku ca dem damaa xëy si léegi nii rek du fekk ñoo maa ngi nii soog a yegg si na ne dafa am ñaari parti ci jumaa ji ñaari parti lan ah noonu ba nu juddoo fi ñu toll jumaa ji juróom am na ko kenn mosu fee wax bàyyi ma ko yoroon liggéey ko ba jàkka ji toll nii daanu daanu na fi tàmm na fi dem na fi hôpital lu ne dañ na ko jaay na alalam def yaay na wurusu jabaram def lépp ndax jëkk bëgg jàkka ji baax jàkka ji baax ba nëgëni ay saytaane jóge fee donc dikk bëgg fee jële xale bi te xale bi leen dàq jàng fop ëpp leen xam-xam du seen morom coow bi coowul imaama la ay ay ñu naan dañuy def dañuy def euh, commission képp ko fi indi ay commission donc ñu naan dañuy defi commission ay xale yu ndaw képp ko fi indi waaye mag ñi sax kenn andu ci góor a ngi kenn andu kenn andu ci wàllum gestion xaalis ko bu jàkka jotee bu jumaa jotee ñu yelwaan li ñu yelwaan ñu di ko lekk ak di ko foyee donc kepp kepp kepp lii la diggante lii am moom naqari nañ ndax képp ku julli rek lii naqari ndax ñun ñëpp daanaka du doon ay jigéen dañoo sëy si fekk si fi jàkk ndax tëj jàkk lu ñaaw la te dara jaru daray àddina jarul ñu tëj jàkk te kenn war ta xalaat di wax lu tax ñu tëj jàkk ndax xale yi bëgg nañu julli ñun ñuy mag ñi dañuy julli ndax ñun dañuy jógee ba jéggi di julli am na ñoo xam ne dañuy jógee ba taliba ñoo di waa marché caare dañuy ñëw di julli si fii koñ bi ñëpp ñun jàkk ji rek lañ xam ñoo di fi julli si li ñu bëgg ñun jigéen ñi ndax am na ñu waxoon fee ñun jigéen nañu ubbi jàkk ñu di julli ndax ñun loolu lañ bëgg dañu ñëw di julli suñuy doom di julli ñun loolu rek leen bëgg loolu rek lañ soxla. jàkka ji wax dëgg yàlla ba fi imaam gaañu ba tey mënatuñoo am lu ñu neex ci jàkka ji te ñun ñëpp ñun xamuñu kenn ku du fa Alaaji Ndeena Mbay ak As Mbay mi nga xam mooy imaam li ñuy ñaan yàlla ak yonent bu fekk li ñuy woote mën ci moom na ñu yàlla may ñu ubbi ñu sunu jàkka ji ndax am ñu dara lu dul jàkka ji ndax tey deux ni ngi nii nodduñu ko amuñu fenn fu ñu jullee ñu taxaw ni ñaaw na jaay xëccoo jaxte dugg na fi génn fi ah mun lu ñaaw rek alaaji nen na may ba muy dund ba muy dund kenn ñu ma wut a taxaw fii ci buti jàkk ji wax kenn ñu ma wut a taxaw fii di wax ba alaaji nen na may di dund kenn ñu ma fee taxaw di wax ak di kaas kon nag ñoo ngi ñaan yàlla ñuy kaas kenn xamu leen ndax dëkkuñu fi tuddoowul ñun fii lañ tuddoo fii lañ cosaanoo fii lañ defee lépp ñoo ko xam bu fekkee yàlla leen tax a jóg dinañ ubbi jàkk ji ñuy julli bu fekkee leneen moo leen tax a jóg nan ko wax ñun yàlla la ñu àndal ñu tëj jàkk jëpp lu ñaaw lu salte la ñu def tey boo amoon tey néew rek foo koy def lii dong la ñuy laaj nan bay jàkke ji nan ubbi jàkke ji ñun as mbay la ñu xam papaam boo ay këram nii mu tabaxee jumaa noonu la tabaxee ay këram ñoo nuroo ay tabax wallahi ñoo nuroo ay tabax ñun xamuñu kenn ku dul as mbay tey bu fekkee ne toog ngeen ay ajuma bu neexee yàlla yonent bi na ñëpp ànd ak as mbay ñu wuti ajuma dem police ñaani leen ñu ñëw ubbi suñu jàkke ji son nañu de ndax boo amee ku dee tey foo ko def ndax jàkk ji depuis 93 bi nga xam ne góor jóge def ba léegi yalla dogal na jàkka ji kenn liggéey fi dara muus yaa ngi dugg kan yaa ngi dugg jinax yaa ngi dugg jàkka ji kenn xamul lu mu doon ñu woo ko ci commission elle n'a pas accepte accepté d'accordul commission bi am commission lañu ko woo bi nga xamee woon ko ci commission mu bañ pendant ñetti at yàlla ci la ñuy def benn AG pour def benn commission bi nga xamee war nañ def commission bi timbo ñëw na fekkee AG bi ñu doon assemblée générale bi Isaaxa Diop fekk na ku bu la neex ngeen laaj leen li ñuy wax mooy ñu def benn commission imaama suñu yoon newu ci imaama kuy jiite suñu yoon newu ci ñun commission la ñuy wax kuy jiit dugg ñu si waaw yaa ngi dégg dugg ñu si ñun waaw ñun dugg si loolu bi nga xamante ni kay nañu mooy commission du si am ndax papam moomam jàkka ji papam moo yore jàkka ji kenn du suñu commission ñoo ko jënd ñoom ñoo ko moom ñu woo ko commission pendant ñetti at yàlla mu bañ ceel def AG bi timbo ñëw na Isaaxa Diop ñëpp ñoo ñu fekk AG bi ak imam yëpp ak waa quartier moom mu bàyyi ñu ci commission bi seen taxawalee commission commission bi mu ñëw te jàkka yëpp caabi te njël ga problème am imaam yi noddu si amul si nodde bi ko SK yëgee mi ngi dund ci la ko waxee commissaire bi wax ko ne ko delloo si caabi yi mu dellu si caabi yi ñu kon na ci loolu bu ajjumaa ñu ket def benn ket dajale li nga xam la am ñett par lañ ko def pour tabax jàkka ji defar waa def defar defar jàkka ji defar waa koñ bi liggéey jàkka jëm ci kanam. bi après bi amee commissaire wooñu bi ñu commissaire wooyee police caaru bi ñu waxtaan pour juboo imaam yi ñoo ko sàkkoon imaam yi ko sàkk woon mooy imaam Piki est yi ñëpp dajaloo nañ ci jàkka ji ñetti yoon ñeenti yoon waxtaan ci commission lañ ko tërle moom accepté woon na ko ba yàgg la mu signé ko daf fi wata am commission ñu nangu loolu ñu nanguwuñu loolu ñu commission la fay am ñu wëlbati ko demaat defaat benn AG buntu këram kan nit nañ def commission bi bi ñu koy def commission bi moo woote buntu këram la ñuy defoon la wax arrangé wu ko mu génnaat ci loolu ne commission du fi am bi mu ko est-ce que ngi teew ñëpp a teew muy lool du fi am du fi amee du fi am ëllëg bi loolu bi loolu amee moom ci boppam bi coow li amee sous-préfet wooñu da daagu daan ñu seeti ko ñu waxtaan ba juboo avant tabaski gi ñëw bi tabaski gi ñëwee avant tabaski gi ñëw pour jàmmaam la ñu fa wax mu xotti ko nangul ba tey

waaye nem ci jiite waaye ket bi ñun signature bi ñu signé accord bu leer nañu la moom moo signé ne nangu na bàyyi ket bi ah sous préfet signé imam Malick Ndiang signé Modou Faye sous président signé ñu ne léegi jubóonuñu léegi accord bi ñuy def moom moom moo mooy moo yore yoolu moralu jàkka ji mais nag ñun jooye ket tabax defar jàkka ji ñun lan moo tax tey ñu tëj moom la ñu signoon moo ko dindi ndax moo du ko dindi yàlwaan jël rakkam def ko naayib dàq bilaal yi bilaal yi fi nekk depuis vingt cinq ans mu dàq leen ka mooy ba Gueye man ngeen koo woo dem mu baare ko ba dëgg waaye noddu 5 heures 45 mu ñëw 7 heures 10 ngir empêché ko mu noddu léegi waaw ah, ñun ñëpp ay jullit lañu ñu dem ba néegu yàlla ñu tëj ko loolu du gàcce masjid ñaari façon jàkka am na du jàkk yëpp moo walaabal seen wéy am na ci jamono solaasen jàkka yoo xamante ni ci jamono saaba yi dañu ko taal ndax wéerul ci yoon jàkka boo nee maa sama bàyyee ko moom lu ma waxul lu fi am lu ma defa ku fi waxte ni waxuma ko jofi jàkka ji ak istaasam daanaka walaabalatul ñëpp moom kenn gis sa bopp imam nekk imam commission nekk ki mu toll kenn bañu lu ko